nga xam ne moom la saxaaba yi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax biñ leen jéem a ragalloo xasbunallah wa ni'mal wakil baat yooyu yàlla ci la dimbalee bépp yonentu ak bépp wàlliyu ci tàmbali jamono boo ci mujj ak jamono maa nusira nabiyun wala waliyun benn yonentu amul benn wàlliyu lu may ci baat yooyu lañ ko dimbalee ibrahima alayhi salaam nga xamee dañ ko dugal ci safara si jibril moo ko feeñu ne ko ndax am nga soxla mu ne ko soxla bu jëm ci yow aw ah, doo laaj am nga soxla ci sa borom yàlla mu ne ko waaw ah, doo laaj sa borom mu génne la ci safara si ibrahim ne ko ilmu bi xaali yakfini an suali yàlla kay eh, xam na xam gi ma xam xam xam suma xaal doy na ma walis man ma koy laaj <laughs> loolu mooy wàkkeelu ci yàlla dëgg-dëgg waaye foofu waxee xasbunallahu ne malokil mu ci sa hadis bu ne Ibrahima bañ ko dugalee ci safara si xasbunallahu ni'mal wakil moom la wax ba mu ci la yàlla wax safara si ne qul naa kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yàlla ne safara si nekkal di sedd nekk di sedd bu ànd ak jàmm bu waxoon ne nekkal di sedd rek bàyyi ne bu ne nekkal di sedd rek te waxut wa salaaman kon sedd bi mën naa Ibrahim ndax gis nañ sedd muy rey nit ñi waaye bardan wa salaaman la wax loolu yëpp nag mu ngi ko amee ci ba mu wàkkeeloo ci yàlla wax xasbunallahu wa ni'mal wakil saxaaba yonent bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom tim ba leen di noon yi di jax-jaxal seytaane bu mu leen a ragalloo yi yàlla ni wax mooy zaadahum imaanan yàlla doolli leen gëm yàlla wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakil kon yonent bi xasbuna allah wa ni'mal wakil moom la wax ak saxaabaam yi ci bés boobu lan lañ lan lañ ci jëlee mooy ñi dellu ci ngëneel bu tukkee ci yàlla teewal bu tukkee ci yàlla ak ngëneel te laalu leen ben hay laalu len bàyyi na siru yi nga gis yeb turi sëriñ si ñoko tarjama maanaam ay ilham la yu len yàlla jox ñi tarjama wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel mom ni def yàlla ci boppam moko ko tarjamaal ndax lan la bañ ko waxe luñ am qalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsa sumsu wa tabaaw ridwanallahi am ngëneel may xéewal ak ngëneel gu tukkee ci yàlla ak mucc benn xay laalu leen ñu topp ngërmaane yàlla kooku moom yàlla moo ko tarjamaal boppam yàlla moo wax li muy jëriñ moo tax kenn ci saalixiin yi dafa wax ne mu ngi xéemu ci koo xam ne dañ koo tëkku mu tiit te fekk moom mu ngi xam xasbunallah wa ni'mal wakiil xam li yàlla wax ña wax xasbunallah wa ni'mal wakiil fañ mujj mooy fan xalabu bi ni'mati min allahi wa fadlin suu mu ci koo xam ne njàqare dafa wàcc ci moom ak jaaxle tam xam laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin bi nga xam ne moom la yunusa alayhi nabiyina wa alayhi salaam wax bañ ko dugalee ci géej gi ci ci te jën wi wann ko la la ci yàlla teg nga dégg ko ne ba mu ko waxee lu ci yàlla teg fastajabnaa lahu wa najaynaahu min alxammi ñu nangul ko ñaaram musal ko ci njàqare moo tax xéemu na ku am njàqare te xam baat boobu mu ngi xéemu ci koo xam ne دنكو تكون دنكو أري تا مقام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فقم لشي الله تك موي فوقاه الله سيئات ما مكروا يا الله فقالكو نياوتك سيني بخي مجو فرعوناك نيانيام مجي شي مبغل بميتي كو خم بات بوبو تن تكو كوراي تا مانوكو واخ تا خم لاشي يالا تك باي مو نه نك بات حسبنا الله ونعم الوكيل képp ku ko taqoo limi xarafam mooy ñeenti téeméer ak juróom fukk suba ngoon daara du la lor ci mbindeef yàlla yi